waaw jardin bi moom kon dina yàqu de noo ko gisee. alam tatgha as-sufratu ala akthari ashjariha wa wurudiha. ah fleur yeeg garab yëpp boo méttiwul dana yàqu de kon. ولكن ما الذي حصل؟ waa lu xew ba garab yi daal di wow nii. جذورها قد يبست أو أنها لم تسقى ماء. xanaa reen yi moo wow wala da nga leen roosewul. وفي غضون ليلة واحدة. nee na guddi génn guddi rek yëpp ci la wowandoo. jaaxal na ma def. تماما كالجوع غير المعهود. الذي أصابني بالأمس nee na man man xiif gi ma daloon xiif ga ma dal dem mun musuma dal mun ko man tamit loolu laa yëg waaye mbokk yi Zuleyxa ngi noonu di daanu de lu xew xam nga ni bëri moom daa neexatul ndeysaan ماذا جرى سيدتي؟ ما الذي حصل معك سيدتي؟ هل أنت بخير؟ عيناي لا تبصران كم مرة نهينا السيدة عن الإكثار من البكاء وعن تقديم نفسها سيدتي كيف سيمكنك العيش بعد الآن بهاتين الأعمال إن كان مقررا أن لا أرى زرسيف فما حاجتي إلى ناظري تكي منو ما جيت زرسيف منو ما جيت زرسيف lu may doyeeti ay bët yu leer mbokk yi kii mu ni mi ngi noonu xam ngeen ni moo topp ci alixmaahu labbe bu mag bi waaye dafa mel ni mi ngi tuuxali ay xibaar war ko yóbbul kiri alixmaahu amoon yooyu mag yi ñu koy nuyu ñi nga xam ne ñooy liggéeyal labbe yi ñooy liggéeyal pale bi ma ne ko lu xew ñu bari nit ñëpp xam nañ ni bekkoor bi tàmbali na loo xamal loolu foo ko jëlee kooku foo ko wax ñi ëpp ci dëkk bi dañoo garab yu bëri dafa daal di mboq nag daal di commencé ruus nag nee na mbirum bekkoor moom tàmbaleen lépp ginnaaw juróom-ñaari at la ñu noonu la ko Yusuf waxoon ginnaaw juróom-ñaari at yu njëkk moom ci la bi tàmbali nee na ko caaxaan yooyu wax yooyu bu leen ko gëm wax yu dal si waru leen ko ak gëm mun ko ah, waaw waaye nag am na loo xam ne waruñu ko bàyyi ay détails yoo war nañu ko bàyyi xel بسنة واحدة كما في السابق يعني ko benn at rek lañu dencoon affaire yi فما أحسن وإن حصل نكون قد حفظنا أنفسنا لسنة من مد يد الاستعطاء نحو يزار سيف يعني ko fi boo moytul kon at mi danañ tàllal suñuy loxo ci Yuzaar Siif لكان بإمكاننا ادخار ما نحتاجه من الحنطة عبر kon li ñu war a def mooy dañu war a fexe ba am dund bu bari dugub pepp bësi ñu koy denc ngir kii bi bañ ñoo sonal bekkoor bi waaye tamit ñu sàkk pexe yuñ ko nat noté moom Youssouf Youssouf Youssouf moom dafa xam secret bi ñuy dencee Euh, li nga xam ne mooy bële bi nee na ko wax yooyu moom yëpp dara du ci dëgg rek ne ah loolu du ay caaxaan li jorti wax du ay caaxaan de lu tax ni mu firee woon gént gi la amee waaye tamit ak niñ technique bi nga xam ni moom la doon dencee dund gi ba yàquwul yooyu yëpp ay ay mandarga la yu man li wax dëgg la waaye nag teewul nañu bàyyi xel lool nag ak euh, nañ nañ nañ ci doxe ñaari tànk mooy moytu ak lan tëral ay plan yu am solo nee na ko mbir yi xew yëpp musiba yeeg natt yi waruñu seen nopp war a ñoo sàkk pexe xanaa kon sama gars yi dañoo bëgg a nangul Yuzarsib ak gëm ko ak gëm yàllam bi nee na ko déedéet nangu nanguwuñ ko sax waaye nag il faut ñu laaj ay question ci yi nga xam ne wax na ko ci yëpp am nag ñu seet na lañ na ñu nag yéen taxawaay lañ ci am waaw weddi loo xam ne dëgg la moom waruñu waaye nag teewul ñu xalaat nag ñoom mbokk yi xam nañ ni li leadership wax dépp dépp dëgg la waaye xatama allahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim gishawa yàlla muur seen xol yi pour ñu wàññeeku dana jafe ñaan man sama noonu duma ko woyofal de waaye tamit dama gëmm samay bër rek su bëri dama cee gëmm samay bër waaye xam naa ni sama noonu moom daanaka ah, du ma oyof ci kanamam waaye tamit xam naa waaye nag xam na ni Yusuf moom li mu wax dëgg la léegi nag ñu ngi dem ci Zuleyxa pour jox ay xibaar ñi léegi bala ñoo dem ci Zuleyxa dañoo war a xam Yusuf fan lay jaar parce que Zuleyxa li mu soxla mooy ay xibaar jóge ci Yusuf comme que Yusuf ngi ne di bëgg jug mi ngi ne di war fas wi di dem dañoo war a fexe ba xam fi mu jëm bu ko defee ñu dem wax ko Zuleyxa ndax man ñoo jox xaalis waaye mbokk yi gis nga waajaa ngi dawal dawal gi metti na daanaka mi ngi bëgg a dal ci kaw nit ñi ko taxawal xoolal lii de lañ doon bañ Potifar lii la bañoon lan moo xew lan moo tax ngay dawal fas yi ba ba ba tiit tiital nit ñi nii ah xanaa da ngaa bëgg a mel ni gars yi gars yi gars yi doon gardé ña nga xam ne mooy pale ba xanaa mu ne ñun nit ñi yilifuñu leen moomuñu leen ñun waruñu leen a tiital nee na ko baal ma baal ma ñun yàkkamtiwuñu doxal ndànk nga dem waaw ah, gars yi ngeen baal ñu nag te baal leen ma. waaw départ day tax cey allahu akbar يسيرون نحو المخازن nee na ko ñuy day ci côté kii ba lañ jëm magasin yi nañ dem bu ko defee ñu xibaar ko Yusuf eh, Zuleyxa wax ko fi Yusuf jëm ndaxte moom day xëy di yendu ci keeba ba ngoon pour xibaar Yusuf rek dana ko waaye Yusuf kan la takk mu ne Asina la takk doomu làbbe bu mag bi nekk fële. nee na ko waa lu tax ñuy nëbb mbir mi mun ko ah, ay at a ñu nekk ay mbindaan kay. waaye soxna si mën a taal a tudd nag. waaye Zulay Zuleyxa na soxna lu muy def. dañ ko war a nëbb war kon dañoo war a nëbb bu bu yëgee ni Yusuf takk na soxna dana xaru. ko waaye lu tax ñu def loolu mu nga ah lu tax ba du takk soxna. nga tamit li tax li tax mu ciy sonn yi mooy xibaar yu bëree bëri yu bëree bëri li mu teg ci kaw usersif moo tax mu nekk nii problème am na. nee na ko am na ñaari xale yu góor yu lay seet mun ko lan lañ bëgg nee nañ ñëw. أراها بوضوح ملكمة الجنيخة الدرع عيناي تفقدان نورهما يوما بعد يوم من سنة البكاء سيدتي ارحمي نفسك تضطرين غدا إلى طلب العون من الناس كلما أردت السير سيدتي لماذا لا تعرضين عينيك على طبيب سينوي؟ لما تحملنا دم في سينوي والمخالة التي بدي قالوا لا دل طبيبي هو شخص وهو ليس على علم بحالها non non Yus euh, docteur bi li ma dal moom xamu ko. ki xame ngeen ñaar yaakaar naa ñoo doon sàcc pale ba. ruku bi ngeen may ak màggal ji ngeen may màggal. loolu bi ma nekkee ñaar deuxième dame. ci réew mi maanaam nekk ñaareelu soxna bi gën a màgg ci dëkk bi boobu la woon waaye léegi nekkatuma ko kon liy jëru ko ruku jëratu ko. lan ngeen ban xibaar ngeen indi lan ngeen bëgg ab neexal lañ la indil ay xibaar yu jóge jaasib waa ji bañ na luñ la bëgg mooy dañ laa bëgg a dégal da ngeen ma andil xibaar bu jóge jaasib waaw waaw léegi ma nga jëm ca côté ma ngay bëgg a wax na fa Yuusuf jëm xanaa Zulayxa bëggoo ñëw defal mbégte comme ñun niñ la bëggalee andil benn mbégte nga bégal ñu yow tamit. dañ toog di ah kay waaw xaar leen ma ñëw yeen kay li ma jot a dégg moom dinaa leen neexal moom waajee bu bëggee wax rek keneen ki wokk ko lay xaa xanaa bëggoo def ci ñun mbégte nee na yéen ñaar andiw leen benn mbégte yéen ay workat ngeen ay pexe rek ngeen di sàkk هذه جائزتكما اصبري seen neexal la ndaw sa jël na xaaral tuuti soxna léegi wax leen li ngeen andi Yuusuf fu mu jëm نحو مخازن ادخار الحنطة سيدتي waaw fee ñuy denc muy bele beeg dugub bi foofu la jëm côté boobu la dox jëm fa waaye ay dem leen seen yoon kon léegi indi nañ xibaar bi wax ko fan la Yuusuf jëm léegi nee na man maa ngi jëm foofu moom maa ngi jëm ca côté magasin ndaxte nee na user si fa la jëm fa laa jëm pour gise fa ak moom soxna yi dem leen ànd ak moom ay bëtam gisatul bu baax kon bu leen ko bàyyi moom dong dem leen ko ngépp ah waaw mbokk gis nga day Yuusufa ngi noonu di contrôler liggéey bi foofu nag ngeen gis ndeysaan fa la ñuy wala li nga xam ni mooy dugub bi ak mboq mi mu nekk fëriñ ci bari dañ ko def ay sunguf nag pour ñuy soxla xeet woowu nee na juróom benn fukki nat ngeen ko ko nattal juróom benn fukki kilo nee na yàlla ñu nuyób yàlla ñu ngi leen di nuyób jàmm na ñii la dénkoon liggéey bi nga ni ñu ràññee bari lool toog leen ngeen àggale seen liggéey bi juróom benn fukki kilo léegi far ngeen tàmbalee nee na yi ñu dencoon depuis sept ans yooyu lañ génn nee na comme waaye nag bi ñu war a njëkkee mooy première manque kii bi fi ñu njëkkoon a denc ci at mu njëkk bi ndaxte yooyu suñu sàgganee rek day day daal di yàqu nee na ko est jox ngeen ñi nga xam ne ñooy bari mu ñoom dañoo amoon lu ñu dencoon moo tax ñi fonctionnaire nag la ñuy njëkk a jox. 50 كيلا شكرا لكم علينا كم كيلو الجرم يرتيب يالنا الاسم وسائر الصفات نوتو اسم الاب نملوك اسكن مدينه طيبه رب لاربعه maa ngi dëkk dëkk bu ñu wax Tiiba am naa ay doom ak ñeent am naa soxna ak ñeenti soxna ak ñeenti doom léegi nag li ñu ko jëndee woon ci yow moom lañ la ko jaayewaat am ñoo xam ni seen euh, liste nekkul ci ñi ñu ñi ñu war a jox parce que ñii ñi leen jaayoon ak ñi leen lebaloon lépp dañ ko def ay liste ak ñi nga xamoon ni dañoo ay borom soxna lañu ak ñi nga xam ne am nañ soxna am ay doom am ñoo xam ne moom ay célibataire lañ yooyu yëpp bindoon nañ seen tur ñoom ñëpp képp ku ci leble woon wala nga joxe woon impôt bindoon nañ ci léegi Yusuf loolu lay contrôlé nag nee na ko est-ce que lii mënoo leen jox ku nekk au ku nekk weer rek waaye ñu jox leen ku nekk li ngay nat li nga joxe woon rek ashaabal atmaar nee na loolu bu ñu ko defee am na ñoo xam dañoo fuqale am ñoo xam ay sàcc lañ dañ ci profité bu ko defee daal di jël lu ëpp parce que euh, dafa doon proposé pour nag ku ci nekk bu joxle lu mat dundu weer rek su jeexee nga ñëwaat ñu joxaat la mun ko am na ñoo xam ni dañuy jël lu ëpp kon ndax ci af ñoo xam ñoo dañoo fuqale am ñoo xam dañoo dañuy dañuy sàcc moo tax ku ci nekk nag liñ la nattal na nga ko yóbbu rek waaye gis nga Zulaykha mi ngi noonu Youssouf lay bëgg a dajeel ji ñu ngi wax ak moom yow xam nañ da ngaa bëgg Youssouf mbëggeel gu tar sa bët yi gisatuñ kon war a doo génn yow dong sa jooy yi ak sa ak sa onk yi mi ngi kon ne rek ba léegi loolu ngay bàyyi nag. ولن أسمح لكبر سني وضعف بصري أن يدعاني سيدتي nee na ko wër leen maa topp kon ci samay bët yi dong di wax lu nekk kon li ngeen war a def mooy te xam ni man samay tànk bu doon métti ak samay bët di métti tamit du ma tere dem li ma bëgg moom faaw ma àgg fa parce que Youssouf nee nañu comme que ci magasin la jëm fa laa jëm seeti ko contrôlé nag kii ba pare mi ngi noonu di ñibbi ñu koy ñaanal Joseph yàlla na dund ak jàmm Joseph yàlla na dund ak jàmm waaye ñun ñëpp fa nga ren pour bëgg kaa gis ndeysaan yàlla na dund ak jàmm yàlla na gudd fan ah mbokk yi jërëjëf am na ku mu gis de gis na Zuleyxa waaye dafa làkkut tuuti la gis ci ci ci kii gi rek tuuti rek la gis ci yére yi ndax am koy koy xool ci biir mbooloo mi dama yaakaar ni soxna sama géntoon moom laa gis fii. waaye yaakaar naa amaana amaana damay man damay jéeñeer rek seet kon bu doon moom la dana dana dana seet mën a kan moom la de su lay xaala de daal làqat woon mi ngi noonu lu xew xanaa kay war na maa gis mun déedéet. déedéet man bëgguma damaa damaa ñëwoon pour xool ko rek waaye ñëw woon pour moomu xool ma ak ni ma mel nii. waaw dama bëggoon rek pour gis ko. waaw la moo tax yow nga bëgg a gis Youssouf. na ñëw ma woon pour mu gis ma. ndaxte ni ma mel nii damaa xaw a ñaaw damaa ñaaw ca bëgguma ma gisee ma nii. damaa bëgg bu may gis rek ma nekk ku rafet ku taaru man dama ñëwoon pour gis ko rek. kii kii doom Benyamin la xanaa déggoo ay déggoo kàddu benn gawar buy jàll nga ne ko demal kay demal nga wax sa papa ni ko am na benn caravane booy njëgg buy jàll nga góor gi mbokk yi dégg bu sori lay am dafa dégg benn njëgg buy jàll mooy caravane mu ni sët bi ndax déggoo ko mun ko dégg naa kay mun ko dawal gaaw nga wax sa baay mi Benyamin ni ko am na kii buy jàll ni mu seet ñooñu ñan la ndaxte góor gi dafa bëgg xam ci ndax ñooñu fan lañ jógee est ce que jógewuñ côté Égypte ak yooyu ndax gis nañ Yuusuf wala dara caravane baa ngi ne de في شيء بني باي لو ما لو ما لو ما دوي هل يمكنك أن تأتيني بصاحب القافلة لأكلمه ndax mën nga ma wool borom borom njëgg ma le waaw xaaral ma da woo ko mbokk yi kii ni mu nekk mag amul sikki moom te teewul day dem ci yónnent day dem yónnent lu bàyyi ji bëgg yaay ji bëgg ko mi ngi seen wet di ko defar kon xale yi war nañoo roy ci loolu léegi di ngeen xam nag kan moo jiite woon caravane bi mbokk yaa nga ne kii xàmme ngeen maa ngi nuyu yonent yàlla bi Yaqub yaay Mali ma ngi lay nuyu maa ngi lay ñaanal jàmm ma yaakaar naa doo ma xam sax ma ne ko ah kay sama bët yi moo tax xaw a néew tuura rek waaye xàmmee naa la ma ne ko bàyyi ji ba léegi bàyyeegul jooy nag sama bàyyi Maliha lu yan xibaar nga mën di laal xibaar yu bari na nag waaye du xibaaru bi nga nga soxla yow. yow ban dëkk nga jëm ban marchandise nga yor ak ban commerce nga def dama jëli ay bant yoo xam ne bant parfum yi pour yóbbu ko Misra pour ñu war koo jaay bant cuuraay laa yóbbu waaw waaw sama waajoo ji réeroon ba léegi gisoo ko ko déedéet ñu bëri laaj naan leen ay ay Misra ak Hind dëkk yu bëri yu bëri ba ma fa demee laaj naan waaye yu bëri daal nee nañ dégguñ dara ci Yuusuf moom ngay wax. fan yii déggaloon nga ma xibaar yooyu neex yu xaw a jóge ci côté boobu. لا أدري لماذا ينتابني شعور دائم أن يوسف في مصر. ما moo tax man may yëg toujours ni Youssouf mi ngi Misra. لكن عزيز مصر وهو nee na ko lu fa xew mu ne ko am am am na am na kii bu fa am bekkoor waaye ki jiite Misra euh, moom dafa dencoon dugub ju bëri ak bëcc bu bëri fi mu nekk nii bekkoor bi yëguñu ko ñoom ci la ñuy xewlu ñëpp ko bëgg moom kilifa googu ñëpp ko bëgg fi mu nekk nii. Youssouf la tudd nag Youssouf Youssouf ak Youssouf benn la mu ne Youssouf mu réer moom lan lay wuti Misra lan la dem ba nekk jiite Misra. maa ngi lay ñaanal bu baax a baax aw yiw. bu ma jaar ci dëkk yi rek dinaa fexe ba seetal la sa doom jooju. kii yàlla ko mbokk yi gis ngeen góor yàlla yi. ni ñu taaroo ak seen sikkim ni mel maa ngi ñaanal yent yàlla Yaaqub mi doomam jooju réer yàlla na ko yàlla feeñal delloo ko ko ndeysaan أظن أن كنعان أيضا ستواجه القحط قريبا yaakaar naa nag Kanaan danañu jaamaan la ñoom tamit ci bekkoor bi te at yi moom lu ci bëri xam naa ati bekkoor lay doon waaye nag lu ngeen wut ci dugub ak ak ak bële na ngeen ko jéem a denc seen kéem tolluwaay kàttan lu fi def ci ndox bu ngeen mënee ji euh, bu dee tuuti ndox am na fi ngeen ji même bu leen di sax lu ci génn rek ngeen fexe ba denc ko seet lu dul lenn la ngeen cee soxla pour dundee ko ndax yaakaar naa bekkoor bi laal Égypte mën naa laal dëkk yi. آخذ في الجفاف يوما بعد يوم يعني هل يمكن أن يجف النيل المقدس ذات يوم؟ bis bu nekk daal décor baa ngi gën a yokk mu ne ah niil daal yaakaaroon naa ni man ni dex gi ni mu réewoon mënta jékki-jékki fer nii سيدتي سيدتي ماذا تريدين؟ ما الأمر؟ لو ngeen bëgg اعذرينا سيدتي lu xew لكن لم نجد شيئا في القصر نأكله ونسد به جوعنا pale bi daal dara lu ñu mën a lekk wala lu ñu mën a naan amu fi سمعت أنهم يعطون القمح مجانا للمحتاجين dégg naa ni ñoom URSS ñu ngi joxe dund gi gratuit li ko maye mu nga soxla لم يعتبروا صاحب هذا البيت ولا أهله من المحتاجين fi hadhihi al hal nee na ko ah waaye ñi yor liggéey bi moom fële waa kër gi jàppewuñu leen ñu ñu am soxla wax góobu ñu joxe leen noonu kon lan mooy pexe bi dem leen ca palais dem leen ca magasin amaana ñu jox leen dara ci la xam ne moo fa am ca dugub ak blé ca dem leen rek. la ko waaj a wax. sama lay àndal wóor na ni danañ am man maa ngi sikki sàkk ci loolu de waaye nañ jéem rek moom yataa boo nañ dem ñoom ànd ak yéen bu ko defee ñu ñu def fii parce que pale bi wóor ñu ko bàyyi mu wéet noonu nañ dem jël yenn kees yi daal di dem gaaw jël li ñuy jël daal di wàññeeku bu demee ñaan ko kii yee daal di wàññeekuwaat nangu nañ ne lu user ci def lu ci bëri dugal na ak ak ak mbégte ci xol nit ñi dañoo war a nangu ni Youssouf moom ñi néew doole ñëpp xëcc na leen ci boppam mbir yëpp yilif na ko nam nam mate. amul lenn lu mën a génn ci kilifteefam waxuma la responsabilité lépp luy kilifteef ci dëkk bi dana ko jël fexe na ba soreel noona bi ba kenn sax amatul mën a dugg ci biir digganteem ak ay noonam. انظروا كيف استطاع أن يبعدنا نهائيا عن قصر أخناتون ويجعلنا محاصرين xool leen ni mu ñu pare ba ba ñun amatuñu fa sax accès mënatuñu faa dugg. انظروا إليه كيف استطاع أن ينحي سيدتي ويعزلها كما استطاع إبعاد xoolal ni mu fexe nga xam ni moo nekkoon yaayam ni mu ko soralee ak boppam ak képp koo xam ne jigéen woon nañu rek fexe na moom ba mu sori buur na yëpp lii léegi nag loolu ndax est-ce que dañ ko war a nangu laqad istataa yusarsif an yuqarriba mustadaa fi misr min al ilahi al wahid al ahad alladi yaabuduhu nee na mën naa xëcc ñu néew doole ñëpp yóbbu leen ci yàlla bu ko defee nit ñu bëree bëri dañ danañ bàyyi yàlla yi bàyyi labbe yi jaamu yàlla jaamu yàlla nee na at mu njëkk bi moom jeex na waaye lañ dencoon daanaka du tuutee ci des kon ñaareelu at ba ñetteelu at ma kon ñun fa lañ jëm waaw bu fekkoon labbe li ñoo doon def def nañ ko xéwal yi dana gën a yaatu ñun li léegi force rek ñu jënd tale bi il faut ñu jënd nag moom xaalis bi ñu dencoon il faut ñu génne ko jënd nag te fi nekk lañ dencoon dara baaxu ci kon léegi nañu féetewoo ñaan rek yow amalu bu màgg mi. yow amoon mu màgg mi yàlla nga dimbali labbe yi ak ñi lay jaamu xeex bi ñuy xeex ak Yuusuf yàlla nga leen dimbali ñu gañ yow amoon mu màgg mi kay ndeysaan gars yi moom déglu nañ xam nañu kii moom ñaan daanaka amatul sens gis ngeen lu mat sept magasin yoo xam ni bu ci nekk rek mooy tolloog at ma nee na ko kii bu ne bu nekk nag ak xaalis bi nga ci war a fay benn bu ne rek waaye labbe daa mel ñoom tamit ñëw nañ ngir jënd si. fanweeri kilo. defal nafar muun moo tudd noonu jox ko fanweeri kilo. moom natt bu nekk da ngeen ci joxe juróom euh, ñetti téeméer. nee na ko benn dim ne rek ngeen bëgg ñooy koo jaay loolu. ah yow ñett ñetti natt nga ñu bëgg a defal loolu ca ñun kilifa dëkk bi nee na ko kii moom ñëpp a ci yem ndaxte mbir mi ñi ko soxla lañ koy jox du woon ñu am xaalis nee na ndax da nga ñuy yemal ak ñeneen ñi yéen jël leen li nit ñu jël rek. waaw mbir mi moom amul amul amul xaaj ak seen yéen bu dee ñun ñoo ñun kon ñun ñooy taxaw position boobu yéen nag nan ngeen war a def waaw yéen war leen a yéen war leen a yokk njëg gi nag li ngeen am yëpp yàlla yéen ko jox mun ko déedéet li ñu am kay barke bi Youssouf la ak yàlla bi Youssouf amoon kay bu mënoon dara yéen ñi lay fajal seen aajo ñeen ñi koy jaamu. kon da ngaa bëgg a wax ne ñetti junni déglu nañ ko joxe léegi kay yow ñetti junni nga waroon defal labbe yi li ma lay xamal daal mooy li ngeen fàtte ñun duñ leen ko jox li ñu li Yuusuf wax ñun duñ ko def nañ dem suñu yoon. dañ ko xaalis bëri la ñu am te xaalis bi mooy bi leen gars doon andil rek ñu doon nax nit ñi rek nit ñi di leen ci topp na ñëw ah mbokk yi waa waa pale ba ñëw nañu lu xew lu tax ñëw leen da nga xam ni maa tudd dafay laatul doomu ibnu Hud man man man man maay bintu boite ma maanaam ku ci nekk yaa ngi présenté wu di wax ni nga tudd su ko def ñu bind seen tur xool ko waaye yéen seen seen tur nag nekkul ci nekkul ci liste bi de benn ngeen nekk ay jaam ñu jox leen li ñu war parce que jaam du fay dara wala tamit euh, ñu euh, ngeen nekk ñoo xam ne rek da ngeen di dellu rek. nee na ko ñun fale Fouti a Rassoul xaar lañ dëkk fa lañ doon liggéey ay jaam lañ. non non yéen yéen jaam kenn du ko jox yéen seen i seen la ñuy jox. nee na ñun tamit suñu sang bi tamit dafa soxla comme ni ñu soxla su ngeen ñu joxee bii paa de walaay duñ ñëwaat di laajaat. leadership daal li mu tëral mooy ku ci nekk bu dee jaam nga sa sang la ñuy jox li la war a dundal lu ci def tamit gor yi lañ koy jox waaye jaam yi moom seen sang lañ koy jox kon seen sang mooy ñëw ñu jox ko liñ ko war a am wala moom bu dee moom daf leen a goreel ngeen ñëw ñu jox leen gratuit du ngeen fay dara. والدولة من واجبها أن ah, تسد mu ni ko waaw bu fekkee tamit indi ngeen fooy buy wane ni seen seen seen ki leen moom goreel na leen léegi nag yéen ja état moo leen di moom waaye état da leen di jox dund gi gratuit du ngeen fay dara waaye nag da ngeen di nekk jaamu état bi nag taxaw leen kaay leen yooyu ndeysaan Potifar ak euh, Zuleyxa nga xam ne ñoo ëppoon alal ci réew mi amoon ay tool ak lépp tey ñu ngi ni yónni seen surga pour ñu yalwaan tey nag danañ leen ko may benn waaye bu subaa moom benn seeni sang ñëw ñu jox ko wala ngeen nekk ay góor ngeen ñëw ñu jox leen rek yal yàlla fay leen ku ci nekk nattal leen ko fukki kilo muy fanweer cooy ndey sax ah mbokk gis ngeen am am am am taxul waaye ñàkkit taxul ñii ñi ëppoon alal ci réew mi la tey ñi ngi yàlla waan ndey sax moo nit ki moom toujours rek li la yàlla jox da nga ci préparé liggéeyal ci yàlla jiital ci addu àllaaxira waaye tamit koo mën a dimbali nga dimbali ko ndax am am taxul ñàkk saxul mën nga am tey suba nga ñàkk man nga am su euh, euh, mën ngaa ñàkk tey suba nga am waaye gis nga tey gars yi ni daan jaamoo daanaka église bi kenn nekkul fi di jaam ñu ci bëri dañuy ñëw rek sëgg daal dem seen yoon te dañ daan fees dell waa ji nag loolu la seetlu moom nee nit ñi nañ gëmee woon aamu ndey gëmatuñ ko noonu rek moo fi des ndeysaan waaye ñeen yebaloon pour ñu wuti ak dund pour ñu jëndi daa mel ni loxoy neen lañ indi de da ngeen a génn ah, loxo yi neen ngeen indi. Yuzarsif daal nee na borom alal yeeg ñi ah, labbe yi nañ leen jaay ñetti kilo bu nekk ñetti téeméer dañoo dañoo toroxal ci biir nit ñi xam naa day dina dem ba bi lii ñuy de lii ñuy jaay muy bele beeg dugub bi dana dem ba gën a cher or. alafu naas min ahli al-ma'bad yatlubuna ko Yuusuf bu ñu ko seeraanee dana dem ba ëpp doole dana dem ba ay pexem yëpp ci ñun la ko jëmale ko xeexal ñun lii nag xeex la lii façon xeex la façon guerre la parce que ci technique guerre yi ci la bokk yajibu alayna an nuhaatim لكن هل علينا أن نقبل بالهزيمة؟ لكن السيف كان يتمنى هذا. waaji nee na ko dañoo war a nangu dañoo nangu dañ nangu rek ndax Yuusuf loolu la bëggoon. إشهار سلاح اللسان nee na ko léegi daal bu ñu toppee loolu rek danañ dem ba làmmiñ la ñuy xeexe ca làmmiñ ma a solo léegi nañu fexe nu ñu fexe ba génn ci li nga xam ne mooy bekkoor bi. léegi daal jaar nañ ci Akhenaton nee na ko nee na ko dañoo sox damaa soxla pour gis ak moom ndaxte dañoo war a defal gratuit comme ñëpp wala tamit wala bu ñu bu ñu mayul sax ñu jaay ñu njëggu yomb. waaye wax ni borom alal yeeg euh, labbe yi moom ala moom lu daanaka liñ leen di jaay moom kilo bi ñett téeméer la ñu ko jaay loolu daa métti lii rek ngeen andi. neen duñ jox jaam yi de ah duñ ko jox tamit ku dul góor noonu dañu koo may rek lii ñu andi ñun dañu koo may rek wax ne jaam duñ ko jox léegi su ma leen góoree leen nag nee na ah boo ñu góoree moom léegi nee na état bi moo ñuy moom. ndax ñun dañoo jàppe ñu yalwaan jàppe ñu ñu soxla léegi moom li ñu wax mooy benn nga goreel ñu ñu jox ñu ñu indi wala du ñu jox dara ah kon ñëw leen maa ngi dem wax ko jardinier bi ku yor waaru genre moom tamit mu ñëw ndax ci jaami la bokk mbokk yi mi ngi noonu bind na lettre bi bay tamponné mi ngi noonu wane ni léegi ñoom ñëpp def nañ leen ay góor leen di bàyyi ñu dem bu ko defee bu ñu demee nag daal koy présenté daal di ko fay joxe ñu daal leen di jox nag la a xam ne mooy seen guut nee na lii mooy tampon Côte d'Ivoire kenn mënu koo changé waaye ñun soo sàkku ñun yow pour nga goreel ñu ñun yow rek lañ xam kon waroo ñoo goreel man ko soxlawu ma seen cofeel soxlawu ma seen ngeen yërëm ma yéen tamit waru leen seen dund gépp ngeen des di nekk ay jàmm أصبحتم أحرار خذوا léegi tey nekk ngeen ay góor bis ni tey lii mooy këyit bi wane ni goreel naa leen kenn mënu leen a gaaral kenn mënatu leen a xañ lenn ci seen i droit waaye ñun ñoo dem de ñun da ngaa am àq ci ñun ñu nekk say jaam nee na amu leen lu ngeen tànn yéen amu leen choix. su ngeen su ngeen defee fii nekk ay jaam da ngeen di dee ci xiif rek ndax amatu lu ma leen jox nee na ko waaye mënoo dund yow dong baa xam nga ni xiif ak bekkoor bi day day day yëngal sa jëm mën na laa dañoo bañ a ñu def beneen pexe rek pour am dund waaye nga bañ ñoo goreel ndax yow dong boo fi nekkee moom sa dund day nekk en danger. يوجد في القصر الكثير من ال... من الأشياء الثمينة ki ko biir yu bëree bëri nekk ci palais bi am na yoo xam ne tamit ay bagage yu bëri yu fi des mën naa koo jaay pour am na ma dunde ma ne ko est-ce ci magasin ma magasin ndax desoo ma ak dund ah kay waaye ma féete walool rek yéen ngeen dem tey na maa ba ngeen tàmbali gën a dund bu bees muy dund góor ñu ngi lay waatal ni dañoo bëgg nga def nga bàyyi ñu def ci rek ñun lañ mu dem seen bopp ci mbugalum adduna bi ak mbugalum bekkoor mi ñun say jaam lañu ñun ñu laa bàyyi dee leen ma fàttaliku rek dee leen ma fàttaliku saa yu ngeen mën na mee ngi ñëw seet si ma ñun ñun daal ay at bi nekk xale ba léegi ñu ngi sawet ñun waruñu laa bàyyi kese ñun yow rek lañ xam yow rek lañ bëgg كملين أين ترانا نذهب؟ ألم تسمعوا ما تقول؟ سيدتي تمهلي قليلا أنا دي أقول إني موافق من تاني خدامك أرجوك هذا كافل هيا اذهبي soxna si dalal bul dàq sa sa mbindaan dem leen soxlaatuma leen allahu akbar ñun mënuñu laa bàyyi yow kese amuñu yéenay bàyyi la amu leen amatu leen fi place dem leen. ana ufaddilu an abqa wahdi fi hada alqasr. min duni faida. la faida. yi amul benn njëriñ suñu bàyyi bi ñu bàyyi bi. la taqbalu bina la taqbalu bina. waay waay bu leen ñu nangu waay waay waay amatuñu bunt waaye ñun fii rek mbokk yi ñi bañ nekkee xale lañ leen jaayoon ci Potiphar ba léegi jaat yi ñu ci bëri Potiphar jël leen muy may leen doole xaam yi ñu dem ba nekk fa mag daanaka seen moroom yu bëri am nañu sët waaye ñu des nekk ay jaam amuñu soxna amuñu doom amuñu dara tey du lay xaar ne leen digal naa leen dem leen moom ngeen seen bopp kon wër nañ dañuy dem ñun ah ñu dem mënumaa gëm ne dañuy dem waay waaye amuñu pexe nañ dem rek. day ndawam lu ci bëri dem na waaye gis nga ñii lañ euh, alixmaaw yebaloon pour ñu ñëw wax dañoo soxla buur bi wax nañ ko soxla ñu ne ko laa soxla buur bi neen lu tax ba alixmaaw soxla li soxla ma pour gisee ak man xam naa mbirum dund geeg yooyu la ñoom la ñu dencoon xam naa moo jeex rek ñaari at yi lañ dencoon a jeex وإلا فسوف نعجز وحدنا عن fii daal ñoom bu dee dañ maa soxla université dafay war a nekk sinon ñun ñu danañu néew doole pour mën a jaamaloo ak ñoom waxtaan ak ñoom woo leen ma université balaa gars di ñëw moom mu fekkee jotaay bi xam naa mbirum dundu bekkoor beeg yooyu commencé dugg ci kër yi xam naa daf neena laal ñoom tamit labbe yi waaye mbokk yi su lay xaar desatul kenn desatul ak kenn ci livraison ci ay jaam seeraayu dund gi wala jafe-jafe dund gi tax na ña leen waroon a jox ca magasin ni leen jaam buñ ko jox ab sang la ñuy képp koo xam nag sa sang goreel na la nekkutoo jaam boo ñëwee ñu doog laa jox ku la état joxee tamit bu ko defee moom état yow fi état ngay féetewu léegi moom ngay liggéeyal saa yu la soxlaay daf lay jël bu lay xaar ni leen nag comme que loolu moo fi sës moom naa leen bàyyi ca bind leen kayit bi wane yeen yéen moom seen bopp léegi tamponné ko moom donc moo des ci kii bi yooyu jar si ndeysaan ay ma ngay woyu su allahu akbar ay waay ci kan lay wéeru waay man laa jëmati sama ñaari bët yi nan laay def moom ñaari bët yi gisatul ay waay Yuusuf ñëwal waay Yuusuf nag maa ngi jàmbat samay mbir ci sa yàlla ji sama xol woow na xamatuma fu ma jëm الله أكبر يا للمسكينة أنا أخاف في قصر الأرواح هذا أين man dong maa des ci pale bi sama wéetaay man fan laa nekk fan laay wéeru sama ñàkk a matal kóllëre gi jóge man jëm ci yow moo tax damaa war a xaru sax daal dee ay waay kañ lay sama kañ lay tàqalikoog sama naqar wi ay waay sama bët yi kañ lay gisati waay ay waay war a xaru waay kaana alayya an antahir xaru de baaxul ay dama war a xaru waay waay mbokk yonent salaa sallam nee na nañ maytu xaru ndaxte ku xaru la nga xaroo bu dee paaka nga jam sa bopp yomal xiyaam yàlla bu la dekkalee da nga dugg safara di jam sa paaka ba faw sa bopp sa paaka bi ba mukk noo xaroo rek noonu ngay nekkee safara yal na ci yàlla musal nee na képp ku jóge ci montagne daanu xaru rey sa bopp da ngay dugg ca montagne safara ya di daanu rek di daanu ca dootoo dee ba mukk cay xam naa ne Yusuf boo xamoon ci wéetaay gi ma wéet ak naqar yi ma nekk da nga ñëw wéetali ma أنت الآن تظن أن زليخة ثبيت yaa ngi yow nag da ngaa yaakaar ne Zuleyxa mi ngi dund dund gu baax ba léegi xamoo ci la ma nekk Yusuf ay waay ñëwal war naa laa sant ba tey tamit ndaxte tax nga sama jaam yëpp goreel naa leen ndaxte amaana loolu mu jural ma lu baax bëggatuma dund man man a ak kenn war naa nangu kóllëre gi nga matal ak man bi nga nekkee xale ak lu baax li ma defal lépp kon loolu sant naa la lépp loo xam ne def naa ko ay pexe jëm ci yow rek maa ngi la koy jéggal kon man li ma defoon ci pexe ñaaw te ma def lii rek moo war a nekk sama fay tey mbokk yi bu doon ko tooñ de yàlla toroxal la nii ñëpp nañ bàyyi tooñ sama pexe yu ñaaw yi ma doon def yëpp yëpp maa ngi rëccu naa ko tey Zuleyxa ngi nii Zuleyxa nag du ñàkk yaakaar ndaxte xam naa mbaaxu Yuusuf muñ naa lu yàgg ci tàqalikoo gi nga tàqalikoo man Yusuf kon man sama yaakaar du tas du ma naa na naay dellu di xaar rek amaanaam bis dana ñëw ma dajeeg yow allahu akbar tey wala ñu tudd alamul firaq waaye mbokk Yusuf ba tey mi ngi mi ngi gént loolu xoolal diggante bi mu liggéey ba càng mu nelaw mi ngi gént loola allahu akbar يوسف soxna si ñëw na. لم أنت نائم هنا؟ لقد غفوت للحظة. ndax ngay nelaw fii man kay dama jékki-jékki rek daal di gëmmentu daal di kii noonu nelaw. أليست مألوفة لك waaye soxna soosu soxla woon ma dimbali ko ba tey maa ngi koy gént. أشعر أنني على معرفة xanaa moom du la kii mu ah kay. لكن مهما أمعنت النظر. mais yaakaar naa ne war naa koo xam. وأين رأيتها؟ waaye saa yu ma xoolee pour pour xam ne moom kana duma dootuma xam kana li tax daal mënuma xam xam kanam soxna jaaxal na nee na léegi da ngay xool liste bi jot a ñëw rek ñu doon sàkku ndimbal ak yooyu wala ñooy ak ñuy bindoon amaana nga gis ci tur boo xam di nga ko xam a nga wala nga ci am ay jeexit nee na ko nee na man daal su doon gis ko gis ko gën na ci man kon naa xamee kanam waaye mbir bi daal ni mu des ni ni mu ni mu ni mu luuse nii ak ni mu am na mbir mu am na xereñ ko ci nekk waaye gis nga lettre bi jógee ci buur ba ne daf ko soxla pour dafa war a daje ak ñoom alixmaahu yaakaar naa daal alixmaahu ak ak labbe yi dañoo bëgg a gisee ak buur bi léegi nag faaw ma dem fekke jotaay boobu dama war a jotaay boobu ndax buur ba dana ma fa soxla. hal xaduuruka daruriyun xatman. أظن أن مواجهة عائلة الأصنام قد دخلت مرحلة جديدة يجب أن تكون الآن ذخيرة المعبد léegi ñiy jaamu xërëm yi moom dañoo dugg ci beneen problème yaakaar naa lañ dencoon daa jeex nag moo tax ñuy ñëw pour sàkku ndimbal ci boor bi parce que Zulaykha gis nga léegi min naa tamit ne leen ay kayit yu wane ni léegi bàyyi na leen moo ñoo moom seen bopp waaye gis de ñoom ba tey nangu ñoo jógee ci pale bi ndaxte bañ nekk xale ba léegi fii rek lañ xam su lay lañ xam moom rek lañ miin waroon ñoom seen xol mayu leen ñu dem ak ko gisatul ñu nekk ci di ko taxawu ñoom def lu baax lañ xam ndeysaan alam aqul lakuma an tadhaba la fi def xanaa waxu leen woon ngeen dem ñun mënuñu laa mënuñoo dem bàyyi la fi yow dong. amaana tàqalikoo gi ñu tàqalikoo yow di nga am jafe-jafe moo tax mënuñu laa bàyyi yow dong bu ma leen ko waxaat waxoon naa leen jugaleen bëgguma kenn yërëm dem leen seen yoon bëgguma ku ma yërëm.